Ameublement, nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Au nom Hôtel Dakar, le chic en toute simplicité. Awalibis vous propose les meilleurs produits agroalimentaires 100% made in Africa. Passez vite vos commandes sur notre site awalibiz.com. nous livrons partout dans le monde. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. SK 60. Christy Beauty, Madeleine Darabi, Mina Wasak. Matidi.com Divine Lingerie, Daru Business, Duchesse Garden, Bienvenue chez Bamba Partenaire. Kajor, African Star, SD, Joel Kantra. Wuriba. Habillez-vous comme vous le rêvez. Ouriba.com. Water 77 197 20 20. As a man wu in ndigil lankeeroo koy yàlla ay jàmbaar dégg dégg te li ñu nekk ci diini yàggatul dara léegi ñu gis njëriñ bi ah aca waay aca gars yi comme ni ko oncle Mor waxee rek bu neexee yàlla lu ñuy béy nii léegi ngeen gis njëriñ bi gis lu ma leen mën a dolli wax dëgg fa la ay gaynde ngeen jógee ndef yo jàmbaar ndef yo soo fele nga roog liglu ngeen njëriñoo nga kontaan naa ci yéen bu baax a baax ate gaay nañ ci nekk waaw nguloog ne beese nguloog ne roofay nga yaam ngeen leeme ne buktuma nguloog Cette espèce de chien rampant pense pouvoir me piquer mes emplois sans qu'il y ait de représailles C'est quoi ce bordel de merde Quelqu'un m'a dit! Wallahi, il va me le payer très cher. Chérie, calme calme-toi li ngay def nii Il y a déjà employé yi ngay wax changé de leen ba Ça sama gagné aussi je m'en fous hey il s'agit plus de recrutement là il s'agit de fierté d'honneur Et tu que Personne ne personne n'offense cas et s'en sort indemne de du kay qui moo koy est là vraiment je te trouve injuste. ah oui vraiment.

en ma présence vous ne dites jamais rien Ça me gêne en ngun nguni da ngeen am loolu de comploter c'est biir lu ma yéegul Oui, moi ah oui bien évidemment Vous pessez, Vous dites. Vous lamb yow xam nga ni man meluma noonu. waxoon dëgg nag ay fen. je ne te trahirai jamais ba pare man yow rek laa am. fen rek ngay def. te non man yaay sama nekk nekk. Madame Traoré, vous allez bien Dites, c'est Mademoiselle Traoré. Ah, c'est vrai. ko soxla woon Tanor. madame, quand Oui, soxla c'est un peu urgent. non dafa génn mais soriwul de léegi mu ñëw est-ce que duma la vous secrétariat comme ça buy ñëwee dina la ko wax. suivez-moi. Ah. À, vui gì em? Nặng, nặng quá هذه شيء على شو سافا؟ عندك مين؟ مين يا شبوي؟

Les espaces de production nous ont tout bonnement rembarrés. Pareil pour moi aussi. Depuis deux mois, ben, ben produit pour me livrer. Toute la journée d'hier Toute la journée, je te dis. T'es venu commencer à ce camion. D'autant plus, tu sais qu'on n'a pas assez d'espace pour stocker sur nos produits. L'heure est vraiment grave, monsieur Meng..! Moi aussi, j'ai le même problème. Les gars, Bon, les gars, les nous continuer. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème le plus rapidement possible. Parce que chaque seconde qui passe, je dis bien chaque seconde qui passe, on perd de l'argent. Une journée nous coûte 20 millions. 20 millions Si vous continuez, AgroDream va saigner. Et ce n'est pas le moment. Ah oui, c'est sûr. Les continuez de bosser. S'il y a une information, dînez-le Merci. Merci à vous aussi.

te xamoo ni nga ma ça. sax coow li ma bàyyi agrodrome xam naa ma fa nekkoon ba léegi sama bopp exploser. non moom Khadija yow man maa lay remercier Yo, tu sais que man j'apprécie quand je passe du moment avec toi déplacement bi nga def nii tey ça m'a vraiment touché. Cheikhou wax naa la kàddu merci nga koy jëmale sama jëmm bi na nga ko arrêté. cheikh man defaluma la un quart de li may defal sa buma la soxla yaangi fi donc entre man ak yow budé ken warna xé nan merci kenen ki man la pa yow donc voilà waaye lu bëgg tamit waaye do fay safari fo yi dawal ni rek ngeen def di créer accident ci kaw tali bi ba jugal fi wa yow irresponsable <laughs> té loo xamul mo wax deug de. <laughs> non mo wax deug kay parce que fi ma garé baxul ya to ngay mais dafa jar muy wax la yëpp ki tamit. Oh, te ki dafa con way bon euh, <coughs> Khadija. Euh, qu'est-ce qu'il y a Non, il n'y a rien. C'est juste que. Khadija, man, dama y xaar le bon moment pour wax je que dama la bëgg mais dama que ni n'est suis un moment seul à seul a un koy éviter je je sais pas pourquoi. du coup voilà. dama bëgg rek nga xam ni que ba ma koy wax Khadija tayuma ko dafa ñëw rek génne sama gémmiñ nii Khadija dama la bëgg ba dof man léeg-léeg damay toog sax di xalaat ni man est-ce que commencé wu ma la bëgg bala suñ borom di ma sàkk Khadija <laughs> bon c'est vrai que maa ngi exagéré mais juste rek dama bëgg nga xam ni que j'essaye de trouver le parfait exemple Khadija pour wax la man nan laa la bëggee sama xol yow rek lay topp say tànk rek lay topp Khadija sama xol ci say waaw lay dox ci say déedéet lay dox Khadija pour gàttal wax ji rek sama xol yow yaa tax muy fonctionner bon Cheikh. non jarul ngay forcer sa bop ci dara man teguma la ben pression mën nga tok xaar ba karok ngay sentir ni yow pare nga pour ñew wax ak man ci loy ressentir moi je serai là pour t'attendre Khadija d'accord. bon euh, est-ce que duñ takk jóg ñibbi tamit parce qu'il se fait tard. te yaakaaruma ni fii lañ dëkk de. je suis trop con. مرادو مانا مبغون يوختان انا مانتو مجال <laughs> لما دانا وحلالو دوما ساتو دبت دين بولي داما يدو جكري كيكي دو مالا سخ دوما يبن ريك نو جابنو يو كيني بريد دانتا نو دبي سام بابا كسام ياي بني ما سيت لو يبو وخمكو يو سام بابا سياي yag nañ la seetlu mais musul tax nga am comportement bizarre bi nga am wax ma lu xew. ni bi ba dañ ci insister trop moo tax ma ci laisse-moi deviner dañu wax ni man bo nek ak man dama lay um wala je porte la poisse wax ma s'il te plaît. ki waxu ñu ma dara. mo dañu mu ma rey sama papa sama yaay. yu yow ki nan nga mënee wax lolu non mais wax ma parce que bu lolu am comportement bizarre bi nga am. wax ma lu xew wax ma s'il wax ma Mariétou wax ma wax ma. kii loolu lañ ma wax waaye man. doomu ko dina solo. yow war nga gëm loolu ak fi mu jaar mën ak yow yëpp. Ndeyki man lii comprendre ma si. rek dugal dugal génn sama nekk génn. Ndeyki soo dugal génn nekk bi soo jógal.

Salut tonton Serigne. ah Khadija. comment vas-tu Ma fille. fi. désolé de Cheikhou pour ça là, pour moom l'a àndal da doon gaare mi ngi ñew. ah d'accord. salut papa. champion comment vas-tu. na tranquille. Tu ngi forme Qu'est-ce hein? si ça sinon toi ta journée ça a été. c'était fatigant mais franchement c'était une réussite totale papa. super. c'était en grande partie grâce à Khadija. c'est grâce à lui dafay jaay modeste fii rek. Tu nga gis paa bi fii tey moo tax ngay ñor di jaay jikko di timide nii. kon xanaa loolu moo tax tey gisuma la au bureau. Oui tout à fait loolu moo taxoon. mais justement en parlant de bureau ça fait longtemps j'en ai pas pris des nouvelles ça se passe comment là-bas. écoute actuellement c'est la merde hein dara doxul c'est vraiment compliqué à Agro trim les grandes surfaces bëggatuñu jël suñuy produits bëggatuñ sax dégg Agro trim alors qu'on a une quantité folle de produits Yo xamné ñi ngi nekk di yaq diggante suñuy camion ak tool yi te dara indiw ko lu dul ñàkk fuñ ko denc problème de stockage. mais c'est compliqué ah. c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. mais kon fofu tàng na hein, fan yii. waaw mais yàlla Ouais, na. waaw yàlla baax na mais ñoo leen ak ci biir. Aïcha Aïcha demal maa ngi ñëw. d'accord à tout à l'heure. Khadija à tout à l'heure pense que c'est le moment de mettre le plan à exécution. Ça va ju du gi yëpp j'espère que yow pare na parce que tu n'auras pas de deuxième chance Khadija. pare naa. mësumaa gis góor bu rafetee nii eh takul, tilimul ñuulul ay bëtam sewul de. lima leer ba leer moy tanor mi ko am doole la tek ci bari xaalis ay sa am na ki mo reuy rëy tanor de monon na ma xol wala mu xol sama mag genn ñu ci li ñuy dundu metti na de maretu yow lan la yeen bu ngeen xaalis de ku ko bañ <laughs> male sama aduna gay ki rek la bëgg gay ki eh da ngay kaf wala yow lan nga gis ci ki la <laughs> mu saf koko macca ko xam gay ki lima gis ci mom bari na gay ki njool na gay ki rafet na wayo gis ngeen teew gay ki bi yeen wayo gis nga ay beutu gay ki tek ci yaru mën teral jigen léegi yow li fi lim yeb ban la am xam nga lu ma bëgg nga jël gay ki mi ne ko tegg na yàq bu naqari te nga xol na goor bo xamantane yor na xaliss yene lako te man lako jox man waruma ñu yor bi ba len deggol leen li ma lay wax man gay ki rek la gis mom rek la top mareetu deugar nga bop de yow lan la mareetu yow xana bëggo teral sa nday do tijji sa bop bi def ci ndox xepi sa beuti xol goor gu bax ku melni ni ndjol na jantal na rafet na mun na sé cey bu doon man dina def le tout pour mu tak ma ndax mom kenn jabaram dafa dé am xaalis baliw taman ko joxé joxe ci rafet lol rafet men kon wéro len mais sëriñ tolul gay ki fi tin sax di ngeen déggul luma len wax man gay ki la bëgg géej gi fépp géej gi partout géej gi everywhere. te taxaw leen sax. miin future madame Ndiaye ngeen gis nii. <laughs> future madame Ndiaye. bu xanaa kii géej gi da koo liggéey. bëgg naa madame Ndiaye. waaw na nga fexe ba bu guddi jotee mu tàcc la nga fekkeel ko. naa ko gis gis tàcc gis gis gis tàcc gis gis tàcc gis gis yaa ñàkk fayda yaa ñàkk rasu maretu yaa ñàkk nawlek àddina maretu lan la géekee tax nga taxaw fii di fecc yow li ndax sa jàmm la maretu amal xalaatu Adina. garab bu la sutu du la may ker wala dangaa fàtte ne kenn nga ci ndeyam ak baayam ginnaaw yàlla yow kese nañu xel demul ci kenn ku dur gay ki mi nga xamne amul sax slip bu mu sol ah li ba kañ ay mare cim yow ku ñak jom nga <laughs> gis gis tat gis gis gis tat gis gis be yolop mu ma Bébé, toi aussi. Beaucoup à toi. Tu sais, ce matin, je crois que je me fait erreur. Je ne réagirait non. Et pourtant, à chaque fois, j'ai créé le dernier Il ne fallait pas prendre la défense de tout. S'il te plaît. Il a eu Pour une des problèmes, il y a toi non plus, tu n'étais pas tendre avec moi. Et pourtant, je suis passée outre. On va pas perdre toute la nuit à parler de ça, n'est-ce pas Et puis... xam naa ni se tout Dieu mais tu et tu sais très bien que tu def li ma mën ak Agro Dream sombre maintenant tu sais ce que je te propose on va profiter de cette nuit pour se faire du bien ni <laughs> mu bëgg nga xam ni man yow rek laa bëgg kay kii te ragaluma la. je sais. n'est-ce pare naa pour jox la sama bopp. Boss, Devant une telle situation, il faut une riposte médiatique exemplaire. J'ai déjà pris contact avec un de mes amis du journal Seine-Soleil. Je lui ai donné tous les éléments. Khamnako, Khalima dina def article bu saf qui sera à la une dès demain matin cela nous permettra non seulement de rétablir la vérité mais également de regagner la confiance des grandes surfaces de distribution. Et puis tu le gars Super. Bien..! Bon, de mon côté, Diana Diot, la directrice de Marchand Sénégal. donc euh, nous na dina ma rendez-vous attendons de voir si je c'est sûr que nous nangu jëlaat suñuy produit parfait par contre chope pas ta fille yo elle va apprendre comment les grandes personnes vont gérer les crises. Désolé, désolé, c'est grave, Je suis mais vous savez comment vous l'étiez. Regarde. Coucou mes agrodum love. Alors comme promis, on est, est ici à une de nos plantations. On va visiter. Mais tout en discutant avec quelques-uns. Je suis total en termes d'audience. Regarde, Instagram actuellement.

salaamaaleykum sëñ bi. yaa ngi si jàmm. lan nga ñu mën a wax ci engrais yi ñu ñu utiliser. lii dañuy utiliser engrais organique. Mhm. ak engrais chimique. d'accord waaye loolu du def benn garankoor ci suñu wér gu yaram. Mhm. ndaxte jox nañu ay matuwaay yu mat sëkk. Mhm. ah alhamdulilah te dégg naa day gën a dooleel boo nekkee xale. merci bon honneur aux dames on va continuer avec ces dames là restez connectés. salaamaaleykum soxna yi na ngeen def bokkoo leen ci ñuy def grève.

te saa yow nuroo baykat de xanaa nga ñëw pour jàng si bay non non yow la monsieur Ndiaye ah man la Géeki Ndiaye waaw téen ni la la monsieur Tanorka moo la plainte ak ñi ngay liggéeyal bokk bay di nga xam fan ngay asamaan fee yor in indi lankeeroo ko yàlla